ngeen jot suñu vidéo nag foo a jot moo leen yi gannaaw ba nu sante suñu borom subhanahu wa taala jullit ci yonanteem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal dellu di ndokkeel jullit yépp ci sunu gan gu mag gi nga xam ne moom lañu amoon te fii ak fan yu néew mu tàggoo yàlla na yàlla nangu sunuy taxawaay yu néewee ci jot a taxaw te yàlla bu doon suñu mujj koor ñi nga xam ne it jiitu nañu ci biir weer wi yàlla na leen yàlla yërëm tomb bi ñuy fàttalante day laalante bu baax ak jaamu yàlla gu mag googu nga xam ne ci lañu nekkoon ñu tënk ko nag ci jaamu yàlla ñu tënk ko ci jàpp sa njàmbur te yàlla tax di jaamu yàlla jàpp sa njàmbur te yàlla rekk tax jàpp sa njàmbur di jaamu yàlla te yàlla tax yetti yëf moo koy ëmb ba ca jiitu mooy yéene ñaareel ba mën naa doon ay wax ba ko ñetteel di ay wax di ay jëf bu dee ci yéene yéene ci misaal mi ngi mel na ñun ñu dëkk ci kaw gi nun kaw kaw ku ne xam na ni ku bëgg a taxawal aw sàkket eh, nu mu bëgg sàkket wa toll na cib njoxlaay ak cib yaatuwaay ak xer yam koy waajale ak laa yam koy waajale ak it sigg lagg yay taxaw di ko lëggéey nu mu bëggum mel ko rek noonu la waajtaay ba toll moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne innama al amalu binniyaati wa innama li kulli mri li kulli mriin ma nawa kon nit ki li muy def mu fas ko te yàlla rek tax su bëggee la muy teg mën a yàgg man faa sax faw mu sellal yéene jooju yéene jënu yéene woon ñun ñëpp ci màng weeru koor wi yàlla na ko yàlla nangu ba ca topp muy wax bokk yi bu yéene jàlle wax dana màndargaal lool li waa ji yéene woon te jëfagu ko wax moomu nag mata bàyyi xel lool ndax bi yàlla xamee yéene ji ni mu toll boroom yéene ji xam ko te yàlla gën ko ko xam fuuf su waxee nag nit ñi mën nañ ko àtte ci ay waxam bokk yi ku bëgg nit ñi jox ko cër saa bu waxee ñu ne teg bu noppee ñépp gëm ko nay wax dëgg ndax waxam ji day firndeel yéeneem mag ñi daanañ ko jàngale ci euh, gone goo xam ne daa yaboon aw mag lool lool yàgg naa am ab sët yàgg naa yab ay maamam du yabeelug yabeel rek waaye dañ koo may buntu ak xar kanam bu leer bu muy kafe ak ñoom ak reer mu di leen maame daal di def daal saa bu ñëwee ci pénc ma fekk leen ñu ne ci jàmm mu ne ndox suuf da laal ndox suuf mooy jaan jaana ko màtt mag ñépp ku nekk jóg ak lam xam ci ay tegtal buñ demee ba def lañ man mu tëë dal muy def na mu doon def bañ jaaxle mu ne dama leen doon naax ñu ne tësër ba benn bis nag jaan dëggantaan laal ko ba mu gis ko ba xam ni mel mu daw ñëw ci pénc ma wax la mu daan wax ñu ne ah bu ngeen yàqal li ngeen def day wax rek na mu daan wax luy tax ñu gëm ko rek wax na ko ci bëgg ñu gëm li muy wax yàqalu leen lañ doon waxtaanee ak lañ doon def bañ demee nag ba xam ne wax na dëgg jaana ko matt ndax am na ñu koy xamee ci xet bi am na ñu koy làmb xam ñu ah, moo ne tey de wax na dëgg ba ñuy laata jóg ak seeni tegtal yëf yi jéggi ab dayo mu far faatu kon boog koo xam ne saa boo waxee bëgg ñu gëm ko deel wax dëgg moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon dénk naa leen ngeen di wax dëgg ndax wax dëgg ci yoonu jub la jaar te yoonu jub woowee àjjana la jëm dal ne kuy wax dëgg di ko wax ba nit ñi xam ko te ba mu tàmm ko ba tàmm ko léeg-léeg sax mu kaf wax loo xam ne demewut noona suñu borom sappi ko muy ak dëgg waaye nee na mi ñuy dénk it ñu moytu di wax ab safaan ba nit ñi xam ko ak nun ndax nee na di wax ab safaan mooy di fen fen mi ngi teg tànkam ci yoonu jëm sawara bu ko bàyyiwul sawara la ko jëme dal ne ku tàmm fen di wax nit ñi muy dañ di ko wax muy dañ ba yàgg dana wax sax loo xam ne lu wér a wér la dëgg la waaye suñu boroom daf cay maandu mu soppali ko ay ay fen man nga ne ko ana sëriñ bi ana sëriñ Muntaxa xafidahullah mu ne léegi laa ko bàyyi mi ngi fii toog ci néeg boobu yi nga ne kon xaaral gannaaw defuma dara naa fa jaar yaar ko door a jàll daal di ñëw ñu ne la léegi la fi toogoon de waaye day waaj lam tàmm ay tax na bu ne la mi ngi ci biir sax boo demee doo ko fekk te moo ne wax na dëgg fa la ko bàyyi yàlla na ci yàlla musal moo tax sëriñ bi wax ne wa awidi lisaana qawla alxayri tafus bihi wa tukfa kullu dayri fexeel ba tàmmal saw làmmiñ loo wax rek muy dëgg su boobaa koo leb mu lebal la koo ñaan mu may la koo ab mu abal la te kuy dénk mën na la dénk awit lisaanaka qawla alxayri tuxda bihi inna allisaana lima awadta yaataadu fi kulli cheyin taaataa ma sananta lahu fi l xayri wa charri fanzur kayfa tasdar kon boog yéenee nga noonu ki yéene lu baax te tàmbal aw làmmiñam dëgg jërut mu naan yéene woon naa nangam su waxee rek ñu xam ko waaye kii am yéene jeneen it te tàmbal aw làmmiñam wax lu dul dëgg di fenn bat bi nag noonu la tudd baat bi ci boppam noonu la tudd moo tax ma tudde ko noonu am na kàcc am na nar am na dóor waaye bu mag moom noonu la tudd moom moo jur yee mooy seen maam su dee ab fenkat it yéeneem day feeñ ci fen yi kenn du ko gëm donte wax na dëgg kenn du ko gëm yàlla ñu ci yàlla musal ba topp ci jaamu yàlla te jàpp sa njàmbur mooy jëf nit ki su fekkee am na yéene ci rafet wax ñu gëm ko su jëfee rek da ko xam waaye li nit ñi gën a mën a àtte mooy ay waxam jëf ji moom nit ñi mën nañ koo àtte waaye baax na ak baaxul rafet na ak rafetut la ñuy àtte waaye baax na ak baaxul yàlla nangu na ko yàlla koy xam moo tax it mu mat a bàyyi xel ci jëf lool boroom xam-xam Maxruf Karaxi na ku am yéene ju rafet di wax dëgg na moytu ay jëfamit mu di ko def te yàlla taxut ndax kuy jëf ngir yàlla fay ko kese kooku ab yaxantukat la maanaam kuy jaay ak jënd la mën naa am mën naa gañe mën naa ñàkk mën naa gañe mën naa perdre waaye kuy jëfit na ca moytu bu dee yàllaa tax tam koy wan nit ñi ragal a dem sawara kese wala bëgg a dem aljanna kese su boobaa it jaamu bañ a dem sawara la wala jaamu bëgg a dem aljanna kese du jiitu ak yàlla dara yàlla na yàlla ñaar yooyu waaye nee na kuy def te yàlla tax jiital yéen a ci rafet tey wax dëgg kooku moom moo moom boppam kooku mbedd ma ko neex jaar ku ko neex ak yow ndax yàlla dong lay seereel ay yëfam yàlla noonu yàlla boo dugal foofee Euh, imaamul Ghazali leeral ko ci xissa boo xam ni bii bu tënk lépp la dafa amoon koo xam ne yéeneem rafet na waxkatub dëgg la euh, di def te yàlla tax ba benn bis euh, mu dégg ñu ne dëkk sàngam genn garab a nga fa goo xam ne moom lañ far def seen yàlla di ko jaamu mu ne loolu moom duma ko seetaan damay dem dogi garab googee moo ne bokk yi fi ma tàmbale woon mooy jàpp sa njàmbur di jaamu yàlla te yàlla tas te jàpp sa njàmbur su jàppanu njàmburam xam na ne garab googee dafa dem ba ne léng-léngéeral bañ di ko wër def ko yàlla di ko jaamu bokk garab ga yàgg na fa waaye ba ko seetaanee bëggee fexeel dana toq ci am noppam ne ko garab sàngam nit ñaa ngi ko def yàlla léegi di ko jaamu mu ne loolu moom du ma ko fekk damay dem daggi ko nit ñi jaamu ji yàlla mi war a jàmm iblis na ko tey nga rafetal sa yéene tey wax dëgg tey jaamu yàlla te yàlla rek tax te bàyyi fa garab ga ndax garab googu soo ko fa jëlee it nit ñi danañ wutaat leneen def ko yàlla mu ne loolu duma ko seetaan iblis na ko bala ngaa dem ci garab ga ne ko moom ci kawam lay jaar moom iblis door a jàll bañ songoo jaamukatu yàlla boobu bii daaneel ko iblis na ko xam naa ne am nga doole yaram jàmbaar nga waaye dama la bëgg a laabire léegi waxatuma waxi garab ga dama la bëgg a laabire léegi mu ne ko maa ngi lay déglu ginnaaw gëmoon na ne addinu na nasiha mu ne ko tee ngaa dem toog jaamu ji yàlla te bis bu set bu doon suñ jamono dañ naa ko bis bu set ma jox la dix mille saa boo xoolee san ko gannaaw da ca fekk dix mille te nga bàyyi fa garab ga mu ne tekk ba yàgg mu ne mu ne loolu de yan na maanaa ndax dix mille bis bu set moom soxla naa ko su jàpp su jàppoonu njàmburam toog fa mu toog jaamu yàlla kese jiital yéene ju rafet di wax dëgg iblis du am ci moom aw yoon iblis tegal ko ci ne ko bu neexoon yàlla mu yónni ngelaw mu daane garab ga wala mu yónni ak daay mu daane garab mu lakk ko wala boog mu yónni ngorka gorkati garab yi ñu gor ko def ko këriñ wala ñu def ko matt waaye gannaaw bàyyi na ko fa tey nga jël jàpp si 10 000 yi te jàmm yàlla rek toog sa néeg mu ne ah kay daal di xëy bis bis bu njëkk ba fekk fa dix mille xëyaat ñaareelu bis ba fekk fa dix mille ñetteelu bis ba fekk fa dara mu jëlaat aw sémmiñam ne day dagg garab iblis ne ko carfal daal di koy jàggi róor ku baax kooku doon jaamu yàlla am yii yéene ju rafet di wax dëgg te amutu njàmbur jàpput njàmburam dugg ci yëfi keneen ne ko sa doole ji foo ko jëlee tey maa la daanoon keroog nga daan ma tey jii iblis na ko keroog ba nga may daan doole ja nga yoroon yàllaa la taxoon a jóg dangaa bañoon ku jaamu lu dul yàlla tey jii nag ñaar dërëm yi moo la tax a jóg lu tax tegu fa dix dix yi moo la tax a jóg lu tax tegu fa dix mille damay mot la ma waxoon moo tax ma ëpp la doole daaneel la kon boog nit na am yéene ju rafet ju dëgër tey wax dëgg tey def te yàlla tax te jàpp ak njàmbaram yonent bi sallallahu alayhi wa ne yàlla lu ko nit ki gën a wutali di def ngir jëmmam yàlla di ko gën a jege misaal ne ko ci ne bu doxee ab sebre sebre mooy ba tàllalee sa ñaari waaraam baraamu dëy bi ak baraam bi ci digg bi nee na ku dox ab sebre jëm ci yàlla yàlla dox ab xasab li ko tàmbalee ci conc ba ci seeti waaraam yi su doxee ab xasab jëm ci yàlla yàlla dox ci jëm si ci moom lu toll ne ab jéego bu mag jéego bu ponkal su dawee jëm ci yàlla yàlla fëx wutal si ko ñu tase mbiram jag daan ne ku dem ci alxuraan da nga ci fekk ñett ñoo gis yàlla la ñeenteel dem ci yàlla jërut dox ay jéego jërut daw waaye tegal sa tànk ci ay ndigalam rek ak lu mu mën a jar jar na ko ndax li ngay def su fekkee moo tax jërul seeral keneen ndax nee na fu ñett nekk moo leen ñeenteel fu ñeent nekk moo leen juróomeel fu juróom nekk moo leen juróom benneel lim ba lu mu gën a dolliku saa boo waññee ba àggal limaale ko ca ma nga fa kon boog bu weeru koor di tàggoo yàlla na ñu yóbbaaleel nett li bu rafet lañ ca def lépp yàlla ne ko yàlla nangu te bu ko nangoo it yàlla bu mu ñu ko wan bañ cay gis suñu bopp te yàlla bu mu doon suñu mujj koor te bu ñu koy fekkewaat déwén nit ñun ñëpp yàlla nañ ko fekk kenn bañ a yées tam ànd ak tal ak man tañ xam na it gannaaw bu weeru koor bi jeexee jaamu yàlla day wéy jaamu yàlla day wéy di yéene yéene ju rafet dëgër ba loo ca bëgg a teg boo ko ca tegee suñu borom nangu ko day wéy waaye di wax dëgg it day wéy rawati di wax dëgg te bokk yi foofu lay jeexale wax dafa am solo lool ci nit ki dafa am solo ci nit bokk ñun ñëpp xam nañ ne lislaam la ko tàmbalee ci sallallahu alayhi wa sallam ba fi mu nekk nii ay wax moo ci dugal nit ndax nit ki may wax ci làmmiñam ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasulullah ñépp dégg moo ne fii jullit yi jaaret ñu di leen jox seeni santi baay ak seen santi maam ku ci waajuram làqu ñu di leen donale ak naan ñi war nañoo yorante ak ñi waruñoo yorante it ci ay wax lay jaar muy ab sëy ab sëy du buum gu ñuy fas lu may ay wax lay doon moo ne la koy dindi ay wax lay doon kon wax lu am solo la lu ama ama am am solo la léeg nga dégg kuy wax naan saa su nañu fàttali ko nañ bàyyi ba àgg fa ñuy faye wax bàyyi jëf yàlla day fay yar yëpp day fay wax di fay jëf moo tax ku ciy wax na fexe ba lu muy wax doon dëgg ba aw làmmiñam tàmm ko maga ngi nii moo xam ne doomam laxasoon na jàngi dellusi doon salma chita mu ne ko dese nga lu bari téere yi dañuy tegtale rek kaay ma wan la wan moo tax àdduna bi ñi nga xam ne ñoo ci gën a jiitu ci wàllu far far gën a farlu dañ duñ la laaj loo loo loo jàng di naan loo mën a def loo xam ak noo man soo nee xam naa nangam ñun la waxal ma dégg soo nee mën naa ko ñoo defal ma gis da ko ne soo xëyee tàllal say tànk foo noo dee takk fu ñu noo dee takku saan nga wàññi ko te loo dégg loo gis nga wax ma mu ñëw lim njëkk yam fàttali nañ ko lu bari daa génn kër gi rek ci salaan si gis pax moo xam ne am ñàngooro ca génne ba mu ko séenee muy ñëw di nit mu bëgg caa duggaat mënu caa duggaat mu taañaañal jàll mu ne lii de kenn mu soo gis ñàngoor mu toll nii génn ci pax mi te mënu caa duggaat daal moom jaxal ko jaxal na ko daal ñibbisi daal di wéyal aw yoonam gis ndox mu ndaw moo xam ne nit ñaa ngi ciy xuus di jàll nit ñaa ngi ciy xuus di lab as ndox mu jaaxle waaye teggi gis ndox mu bari moo xam ne nit ñaa ngi ciy xuus di jàll moom ci boppam bokk na ci ci xuus jàll ñu ne tëgg san mu wàññi ko ñëw way juróom ne ko loo gis mu wax ko mu ne ko li nga jëkk a gis muy jaan ju génn ci mpax te mënut a dugaat mooy wax bu xase ba génn jeex na dootoo ko jotaat yal ne dëgg nag bu dee dëgg moom saa ba waxatee ñu gëm ko mu ne ko ndox si nga xam ne nit ñaa ngi cay lab tamit tuuti mu ne ko mooy bokk yoo ànd bokk yoo xam ne dañoo xam la leen boole ñu téye ko ba mu dëgër ku ca dugg des ca waaye ndox mu bari mi nga xam ne ku xuus jàll mu ne ko mooy bokk yoo xam ne yàlla boole na leen waaye bokkuñu loolu ku ne mën naa xuus jàll ku ne mën naa jaar sàkk yaar yi ma wax nag bayat ku ko xool ci fan yi ñu toll ci suñu jamono neex naa jàngat te nit ki su fekkee soo ko waxut ba àgg du ko xam jëru nga di ko wax dara yàlla noonu yàlla defal dëgg topp te musaluñ seytaane ki bakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina